mais loolu yëpp war nañ ko encadrer mais liberté d'opinion itam warul tax nit fu mu ne wax lu ko neex yëkkati kàddu gu ñagas wu yëkkati lu dul dëgg xas nit toj kër tas ay mariage loolu war nañ ko xoolaat parce que loolu tam du liberté d'opinion xam nga euh, man dama jàpp ni rek loo am am sañ-sañ si si mbind ak loo am sañ-sañ si wax war nga wax loo xam ne luy rafetal la mun nga xeex sur des principes mais la ngay bind nga solal ko malaan la ngay wax nga solal ko malaan parce que itam waxuma président waxuma ministre waxuma député waxuma fonctionnaire waxuma enseignant waxuma musicien mais kii nga xam ni c'est un sénégalais citoyen lambda comme Abdoulaye Mbow sax nga taxaw di ko wax wax ju ñaaw bind si moom wax ju ñaaw danga nga war a génn turam dugal fa sa turu jur bu góor wala sa turu way bu wayjur bu jigéen pour xool lan lay lan la lay jox nga doog a mën a dugal turu bàyyi jàmbur wala turu nday jàmbur <laughs> wante liberté itam dañ ko war a encadrer mais on ne doit plus embastiller véritablement sur la base de l'article quatre-vingt tey jii nii sur la base de euh, lu ñu koy waxee sanction pécuniaire wala sanction euh, beneen d'intérêt public travaux travail d'intérêt public sax war nañ sa mën a si ba nga xam ni véritablement article quatre-vingt bi ñu ñu koy tuddee le monstre vivant war nañ ko xoolaat parce que itam dafa nekk loo xam ne war na na nekk suñu ginnaaw parce que la presse à marché sous Wade aux côtés de ceux qui dirigent aujourd'hui pour dénoncer justement cet article, ce monstre vivant, ce monstre qui est encore là et qui refuse de mourir. Très bien alors euh, euh, Pape Mactar ñu bëri dañoo jàpp ne dès que euh, des fois dañuy fàtte un peu on mélange on mélange un peu les pinceaux dañuy jàpp ay activisme. wala euh, militantisme tax loolu tey on se cache derrière tout ça euh, pour dire ce que l'on veut au nom de la liberté euh, d'expression alors est-ce que tey jii loolu war nañ ko war nañ ko war nañ ko di def waaw non xam nga loolu moom c'est évident que non kenn waru ko di def parce que en fait liberté du libertinage mais aussi du liberti du liberticide libertinage mooy nga xamante ni da ngay wax loo neex fekk nit nga proférer ay insultes à son encontre wala ngay wax loo xamante ni aussi bu ñu la ni woon nga prouver ko doo am doo am benn firnde bu leer loolu kenn du ko rafetlu mais aussi bu ñu fàttali ni le président Macky Sall moo demoon di manifester pour libertinage ñi nga xamante ne dañuy saaga suñu lu ñu gëm suñu yonent yeeg yooyu moom mu dem taxaw seen wet dinaan des marches pour la dignité humaine donc moom bu accepter que ni la dignité humaine existe en France war na ko accepter aussi au Sénégal même bu nekkee nit ñi kenn du rafetlu kàddu yu ñagas yi wala kàddu yi nga xamante ne parce que wax wax la rek kee dafa bind def ay kiiwam kii bind ay def ay affaire c'est-à-dire il faudrait que ñu ñu jéem a dépasser le délit d'opinion parce que am na yoo xamante ni aussi nit ñi boo leen continuer di leen xoqatal aussi amuñu fu ñu waxee en un moment donné da ngay créer sax benn benn benn certaine arrogance wala benn certaine insolence si ñooñu parce que aussi y a pas plus insolent que ñu lay wax ni réew mi nga ne y a des centaines de milliards yoo xamante ni chaque jour ñu génn dem si benn poche su nit c'est-à-dire rafetlu ñaaw mais dafa am loo xamante ni aussi ñoo gën a ñaaw fukk yoon ko kàddu te ay acte la yoo xamante ni ay nit a siy dee ay nit a ñàkk seen bakkan ay nit a tax di dugg ci ay désert di dem ak yeneen yeneen te beneen affaire bi aussi maa ngi dégg Thierno Alassane Sall en fait ñi ngi dugg ci piège u ñi nga xamante ni ñoo ne ci ci ci ci ci ci nguur gi ci pouvoir c'est-à-dire manifestation kenn du ko natt moom la ab Ablaye Mbow wax ci nit ñu fa ñëw ci représentativité ñu nekk ci manifestation gënuñu ñu toog seen kër parce que en fait chaque petit geste compte mënoo ni da ngay dem manifester pour la liberté et puis ngay imposer nit ñi ñu dem ana la liberté bi ngay woote. Mhm. c'est-à-dire nit ñi parfois da ngay posé ngay poser des questions. les gens sont libres de venir ou mais c'est ça xam nga boo wootee benn cause bu noble bu juste. yow defal li nga war a def keneen ki aussi nga jàpp ni njorti ni li li mu war a def mi ngi koy def peut-être moom travail de sensibilisation bu muy def ci këram la ko mën a defee du mën a dem ci place publique donc bul ko imposer mu ñëw ci place publique ñëw di traîner def nga traîner benn foule ban njëriñ la am Abdoulaye Wade bu ñuy fàtte que ni indi woon na fi manifestation boo xamante y avait presque deux millions de personnes ci ci ci ci ci ci croisement Béthio bi fii lan la ko jëriñ ba mu demee ci élection donc nekkuñu si ay contexte yoo xamante ni ay centaines de personnes wala des milliers de personnes lañ soxla lu ñu soxla mooy nit ñi bu ñu amee euh, li nga xamante ni ay frustration la wala bu ñu amee ay question ñu posé ko ñu déglu leen bu ñu amee aussi ay inquiétude ñu posé ko sur la place publique maintenant du nekk yow mi fa nekk yaa ëpp mérite que ki nga xamante ni nekk fa mm-hmm. mais ku nekk dafa am li ngay def te mission bi ngay def yow aussi na nga ko def c'est aussi simple que ça ñeneen ñi nga xamante ne mën nañ ñëw ci manifestation nañ ñëw mais doo toog di naan way gars yi ay match de football moo leen intéressé wala ay lii moo loolu yaakaar naa boo koy wax sax yow yaa ngi dox ci liberté nit ñooñu nga tax nga xamante ne da nga koy wax maintenant le reste moom libertinage c'est vrai que kenn du ko rafetlu mais encore une fois li gën a ñaaw wax ak kaddu ñi ngi koy gis ci réew bi mooy ñi nga xamante ne ay kilifa nañ ñu jox leen suñu xaalis jox leen suñu essence jox leen lépp ba fu ñuy tëdd ñoo koy fay ñu jël suñu xaalis di ko sàcc di si entretenir ay yenn affaires yi te am na yoo xamante ne boo ko waxee ci télé ñu da nga ñàkk teggin alors que ñoom lu ñuy def moo gën a ñàkk teggin fukki yoon ak juróom donc il faudrait que ñuy dépasser délit d'opinion te ñuy dem ci responsabilité te am na benn penseur bu koy wax naan plus les responsabilités augmentent plus les droits s'abaissent boo xasee ba am yenn responsabilités yi da ngay xam ne yu bëri mooma toog te mën a dooga neen Aïcha émission bi ngay def di nga toog ci net bi nga koy accepter parce que boo xasee ba ni yow yaa ñëw ci la wax nga mer xëcc sa article 80 wala 254 dugal ne nekkee yii aka ci gaaw 6 heures du matin nañ lay xaar ca buntu kër julli fajar ñëw ñu jël la yóbbu jox la mandat dépôt <laughs> wala ñu sànni la fële sànni am na yoo xamante ni aussi mooy lu ma la wax rek mën nañu téye cent personnes du dugal leen ci kaso mais terewul milliers de personnes dinañ am même xalaat bi te mun ñu aussi milliers de personnes dinañ jéem a fexe ba sensibiliser nit ñi parce que lii ñuy wax nii suñu avenir la mooy pétrole bi ñuy wax mooy yeneen yu ñuy wax te lu ñuy wax yëpp lenn kaseel nañu leeral wax xaalis bi fan la dugg bu nekk Aliou Sall dafa yore suñu quatre mu jox ñu ko ngir yàlla bu ko yorul nag mais ñu jàll ci leneen. très bien alors Baba Baba Amdi. oui euh, moi je pense que boo xoolee li xew euh, euh, comme ni mu ko waxee sénégalais yi match le leen intéressé ak yooyu xam nga xam nga les sénégalais sont très fatigués le peuple est trè très difficile les gens ont faim dëkk bi dafa metti c'est très très dur arrivé à un moment gars yi Eh, olof nee na saako balaa muy eh, taxaw. day fees. nit ñi dañu sonn dañu sonn si opposant yeeg ka nekk ca pouvoir bi dañu sonn ci ñi nga xam ne dañuy créer ay eh, seen ay mouvement ak yu kenn xamul parce que ces gens qui les qui les qui les qui qui la population à descendre ñoom ñëpp a yore seen ay oto climatisé seen kër yi climatisé seen lépp ngi bien. ngay woo tout le temps ay doomu jàmbur pour ñu wàcc mais à un moment seen ay wayjur dañ naa leen saway gis ngeen ñii dañ leen di sonal ça c'est une ça ça c'est une chose parce que dëkk bi coono bi nit ñi toll léeg-léeg dañuy tal leneen quoi dañuy tal leneen boobu mooy benn beneen bi euh, euh, grand bi wax na ko mais moom aussi wax na ko d'accord nañu ci ne nit moom du lu la neex rek ngay wax c'est-à-dire loolu nag moom euh, aujourd'hui moi fait peur et ça doit faire peur à tout le monde bu fekkee lu la neex ngay wax parce que internet bi mu ngi fii attention boo ayee buñ la waxee di nga bëgg a xaru walla fake news duggagul réellement Sénégal ah dañuy defantu fake news les vrais fake news mooy ñun dañuy toog ci plateau bi wax li ñuy wax ngay dégg ne ñu ngi saaga nday donc nag mbir mi da koy teel a arrêté Mark Zuckerberg propriétaire Facebook woowuñu ko euh, fële de ca tribunal ba de xam nga fu ko wo ca Sénat ba. Mhm. daal di ne ko saay fake news yi mu ngi yàq àdduna mu ngi yàq élection brésilienne yi ak Venezuela tu sais qu'est-ce qu'il a répondu je n'y peux absolument rien je ne contrôle plus rien du tout après Union européenne woo pour te dire fi mu jëm. maintenant nag mbir balaa nga xam ne dina egg fee danga koy teel a téye. arrêté da koy teel arrêté et puis ñun ñun dañuy xewal ñun dañu mun xewal ni ñu mën a xewalee télécentre ay site internet parce que pour nga jën benn nom de domaine buy jar trente deux mille trente cinq mille francs après nga tuddee ko ndumbelaan gis-gis nu la neex après ngay wax sa gis-gis kenn ku nekk taxaw di saaga. il faut éduquer la génération future. Et pour éduquer la génération future, c'est maintenant, c'est avant la naissance. Très bien, c'est très clair. Il faut me terminer, il faut me Très rapidement, mm-hmm. euh, ma bëggoon ci ni rek parce que en fait bu ñuy éduquer génération future bi c'est par l'exemplarité gis nga wax lu mu metti metti lu mu ñàkk tegg ñàkk tegg jëf a ko gën a yées jëf yi day rey te ñu ngi koy def tous les jours nit ñi di ko gis donc nañu bàyyi wax ci di wax jëf ji jëf ji yaakaar naa moo gën a bon moo gën a ñàkk teggin moo gën a ñàkk sutura te ñu ngi koy def chaque jour mi suñuy élite yi di suñu président di suñu ñeneen ñi nga xamante ne dañ leen fal alors li moo doon tëj euh, euh, partie actualité donc dañuy ñëw euh, si suñu thème du jour on parle aujourd'hui on parle ce soir du mannequinat et pour en parler nous avons avec nous Serigne Mansour Sy Cissé auteur du livre échographie du mannequinat entre provocation et pénétration à côté aussi ñu ngi ànd ak kii di As Moussa Samb mannequin acteur donc maa ngi lay nuyu Serigne Mansour Sy Cissé. maa bu baax soxna leen na Aïcha Ba. Euh, maa ngi ndokkeel ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ci weeru tabaski bi nga xam ne teru na dara gënu koo yéeme ñu ne la weeru tabaski ci lañuy ñuy aj te yonent bi dafa wax ne aj bu ñu nangu payam ajjana la ma ci fàttali nit ñi ni Arafat defe naa ci neuvième jour bi la lu ñu def ba mën ci moo xam dañuy woor moo xam leneen lu ñuy def loo xamante ni daal dina seral xolu dina seral euh, maanaam luñ ciy def loo xamante ne daal l'islam dina ko rafet lu loolu luy am solo lay doon maa ngi nuyu tamit ñi nga xamante ne ñooy ñi ñuy seetaan mais di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñooy samay lectrice ak samay lecteur mm-hmm. voilà très bien ñu ngi lay fay alors euh, Asmoussa ñu ngi lay nuyu di dalal euh, ak jàmm ci plateau Ndoumbélane maa ngi leen di euh, nuyu ñeen ñi ma bokkal plateau bi nee ay Aïcha maa ngi lay nuyu di nuyu euh, téléspectateur Sen TV ak euh, ñëpp ñuy seetaan émission Ndoumbélane très ñu ngi lay fay alors tey dañuy jéem a comprendre un peu euh, euh, euh, le milieu du mannequinat euh, parce que suñuy wax man naa euh, benn perception la ci sénégalais yi am la ci ñu bëri am alors on va essayer de comprendre un peu pourquoi lan moo tax nga bind ci yow livre muy échographie du mannequinat entre pénétration et euh, entre provocation et pénétration lan lay firnde loolu yëpp. waaw xam nga d'abord damay lay xawal jubbanti tuuti sax parce que. échographie du mannequinat au Sénégal la entre avance et pénétration xam nga alxuraan dafa wax ni maanaam bu ñu yëkkatee information mu nekk rumeur da war a dem vérifier ko te man dama gëm li ñuy tuddee journalisme de construction mais journalisme de construction aussi dafay ànd ak journalisme de déconstruction yow toggkat nga loolu laa njort maanaam booy defar nen tey faw nga toj ko loolu leer na beneen bi bon c'est-à-dire man ki naa daf ci am yu bari yoo xam ne daf ciy xew te man sama xel nangu ko daal maanaam da ngay gis nit koo xamante ne yow da ngay xam kaseem mais muy dund dund boo xamante ne méngoowul ak am amam te dafa am li may tuddee la vérité des bibliothèques maanaam man bi Sénégal amee indépendance ba tey mosuma gis benn journaliste mosuma gis benn intellectuel bu ci def une analyse approfondie du milieu du naa bon sañ naa ko xam naa mu ñuy seetaan c'est-à-dire mannequins yi depuis des années ont eu à bénéficier de ce que j'appelle des articles de complaisance je le dis parce que je l'ai dit dans l'ouvrage donc amulu ma ci ne am na ci ñoo xam ne quand l'actualité ne leur donnait pas en fait le micro dañ daa dem seeti Mansour Dieng mu defal leen une des articles de complaisance article de complaisance naturellement je le maintiens parce que mu ngi ci livre bi hmm. bon Euh, mu doon loo xamante ni bon dama ci doon xalaat daal di ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat ma ne non dafay jaadu ma def ci enquête parce que man dama lire Mao Tse-tung Mao Tse-tung nee na boo bëggee am légitimité da ngay enquêter bu dee ci wàllu yi la maanaam ku enquêté wul amoo légitimité pour wax. effectivement. donc man am naa sañ-sañu wax ci man kii naan kooku mooy benn beneen bi. dama mës liir benn entretien boo xam ne ndem si yàlla mati mbuj moo ko def mu ne moom euh, chaque jour elle lui arrivait de dépenser quatre cent mille francs quatre cent mille francs n'est-ce pas mm-hmm. te man xam naa man ki naa xam naa ko bu baax parce que man depuis deux mille cinq damay lire euh, magazine people yi di intéressé wu ci affaire mode loolu wax naa ko ci avant propos bi mm-hmm. donc cent mille francs fii salaire boo xoolee cadre supérieur la bac plus 4 bac plus 5 bu nekkee nit taxaw na ne moom par jour mën na dépenser loolu ba pare ci ñàkk fayda la koy jëndee maanaam ay fang loolu dafay jaadu tey journaliste yi def ci enquête ba pare beneen bi mooy mannequinat cœur de métier au-delà Paradem mu nekk loo xamante ne industrie de mode la kër de métier dëggantaan wala ñi nga xamante ne ñoo ciy yëngatu ce sont les euh, boo xoolee PSE avec le capital humain xale yu jigéen ñi la maanaam jigéen ñi la ak jeunes yi la aujourd'hui est-ce que ñun dañu war a toog croiser les bras muy am activité yoo xamante ne yi man gëm naa ni en fait du ñëpp nag parce que man am naa top xarit top la boo xam ne vingt heures quarante lay tëdd avant vingt une heures tëdd n'est-ce pas donc est que ñun dañu war a toog di seetaan am activité yoo xamante ne yi aujourd'hui dafay pervertir suñu jeunesse man damaa jàpp ne par exemple non mais man kii naa bokk bari na comprendre nga. lii mooy ñu si wala benn rek. mais entre autres ce que lan nga bëgg a wax foofu ne que euh, euh, entre autres mannequinat day pervertir euh, suñu suñu jeunesse bi. non xam nga li tax ma wax loolu. pourtant d'autres diraient le contraire. waaw d'accord loolu ñoom seen gis-gis la loolu moom seen ñoom loolu ñoom seen gëm-gëm la mais man li ma gëm te jàpp ko mooy quand on n'est pas un être formé quand on n'est pas un être préparé mënoo def mannequinat xam nga lu ta parce que tentation yi dafa bëri trop. te journaliste train bi nga xamante ne mooy arrivé à l'heure intéressé wu ko man li ma intéressé mooy li nga xamante ne dafay am ci milieu mannequinat te journaliste bu ko wax ñu saaga la Adama Paris 2016 dama koy tudd dafa toog ci TFM mu ne Sénégal amuñu ay journalistes on a des dournalistes c'est ça la vérité des faits benn rappeur ne ko on va les niquer benn rappeur moo ko wax au téléphone on va les niquer comprendre nga bu nekkee nag yow da nga nekk ci mbir di ci yëngatu. di wàññi lu rafet rek te safaan si ku ko wax nga saaga la en fait ñu saaga la mais dafay jaadu am ay journalistes yoo xam dañuy jël risque existentiel bind loolu kese la du leneen. Eh mais risque euh, safaanoo yooyu comme lan la. waaw mais xam nga tey jii ñëpp xam nañ ni défilé wala boo bëggee nekk mannequin dafa am ay exigences. yan. mais taille d'abord y a ce que j'appelle maa ngi koy wax ci livre bi y a ce que j'appelle la tyrannie de la maigreur c'est-à-dire dañ leen di imposer ne. ci bii taay nga war a dugg tax xale yi dootuñu lekk mu nekk benn genre boulimie est-ce que comprendre nga dootuñu naan da nga ciy gis koo xamante ne en un mois mën na perdre par exemple walla cinq kilos en deux mois mën na perdre presque je veux dire dix kilos mais loolu tey dafay jaaru tey nit ñi toog débat ci un débat très sérieux waaw mais est-ce que mais ça ce sont ce sont aussi oui Baba allez-y. mais est-ce que tu ne penses pas que c'est comme un joueur de football. oui effectivement c'est ça que j'allais dire bu affaire bi laajee wala nga nekk benn lutteur benn modlo ñu ne la fu mu nekk nii. combat bi il faut nga perdre ce qui. mais mais mais beneen bi sax. xaaral soo defal nag balaa ngay jàll. man li ma gëm man sama gëm-gëm la sama enquête loolu la feeñal xam nga mooy lan mooy ñett bu nekkul ci yow mënoo def man ki naa man loolu laa gëm quoi xam nga mooy lan da ngay am wér gu yaram di lekk lekk gu baax di sport loolu laa gëm man man loolu laa gëm. mais oui c'est évident <laughs> loolu c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal que ngay lekk lekk bu baax euh, sport ak am wér gi yaram c'est tout à fait normal à peu près mais c'est tout à fait aussi normal que nga am taille boo xamante ne ñoom loolu la ñu bëgg mais xam nga taille boobu c'est ça qui fait le métier d'autant les lutteurs comme il l'a dit d'autant les footballeurs donc c'est tout à fait normal et comme ñun ñi nekk ci télé bi rek affaire bi foog ñu maquiller la ñu am lu mu laaj non bokkul <laughs> non non xaaral li muy wax côté taille ñàkk lekk maigrir rek yooyu Euh, je pense que titre bi ma dégg ça parle du mannequinat au Sénégal. Mm -hmm. oui. donc il faut lui poser la question est-ce que loolu ba xam ça s'applique ici au Sénégal. mais absolument ça les ah moins lan lan ndax lan nga ne. taay critères physiques yi ngay wax. mais bien sûr que ne dañu war a maigre noonu comme le style européen. non mais je euh, souvent dañ koy gis à la télé fii nii Sen TV avec les tenues traditionnelles ñuy défilé vous ne voyez pas. ah parfois nga gis ay mannequins parce que ñooñu dañu bëgg def carrière au niveau international il y comme ni mu ko waxee. peut-être moom seewaay bi la ci wax wala de mën nañ ko demander peut-être au niveau de la hauteur wala dara man damay euh, damay intervenir ci yenn point damay commencer ci ndem euh, si yàlla Mati Mbodj ndax euh, barki dem moo Ndiaye lañ doon fêté quatre ans am di ko ñaanal yàlla fi mu nekk gënal ko fi mu jóge te yàlla jégal ko ay bakkaaram je pense que <coughs> comme niñ ko waxee début bi wax na ci tabaskeek dugal ñu ci diine beek yooyu noonu yëpp njort du ma njort ne xam na li ñu wax ci ku génn àdduna ak luñ ko mënti xamal même bu fekkee je dis bien même bu fekkee lu ñaaw la ñu suturaal ko xam nuñ koy waxee benn ci loolu deuxième bi wax na boo bëggee defar omelette foog nga toj ay nen soo bëggee toj nen poulailler ngay dem mënoo dem ci gétt bay bi naan da ngay jëli sa nen pour ñoo defar omelette c'est pas possible def na échographie mannequinat Sénégal man je suis mannequin depuis dix ans ngi nii mooy exercer man Kina je suis dans une association boo xamante ne ça s'appelle association des mannequins et métiers de la mode du Sénégal parfois bu ma c'est vrai que liiruma livre bi parce que dégg naa ko dégg ci yenn intox yu ñu ci wax j'ai même pas pris le temps ne dama koy dem di ko lire en toute sincérité parce que je me dis que ne vous m'excusez du terme mais c'est des bu fekkee dangay ñëw bëgg a def autopsie ci benn affaire ñëwal dans le vif du sujet au cœur du métier association bi sa regroupe toutes les générations de mannequins ñi fi njëkka nekk mannequin au Sénégal Camou Seck mi ngi fi c'est le premier mannequin homme du Sénégal est-ce que consulté nañ ko y a euh, Khadija Sy y a d'autres générations on s'est posé la question man déjà loolu fa laa ko njëkk gisee livre bi et on a posé la question ci biir est-ce que am na kuñ ci consulter pour def euh, nu mu ko tuddee échographie sunu métier gisuma ci kenn koo xamante ne considéré nañ ko si donc je me dis que a problème y' problème métier boo mënti gis y' a des critères y' a des exigences soo ci bëggee dugg il faut nga am noo war a mel physiquement taille yi muy wax ak critères yi muy wax et tout au niveau physique bi ci jigéen ñi c' est vrai c' est valable en Europe tey par exemple di nga gis benn mannequin bu nekk fii au Sénégal di def tabac di exploser podium yi mais fale boo ñëwee lépp la ñuy mesurer à des centimètres près à des millimètres même da ngay ñëw ñu ne la tour de poitrine am nga benn centimètre de plus il va falloir que nga maigrir fii on n'a pas ces problèmes là fii la plupart des défilés da ngay ñëw ñu jëlal la ay mesures confectionnées daal di ñëw teg.

alors non non ñoo ko defaral échographie bi muy wax ba non xam nga man jour man xoolal parler réellement xam nga man métier du mannequinat man hmm? man journalisme enquête laa gëm en matière de journalisme d'enquête dañ naan da ngay dem ba ci trois niveaux dem naa ba ci sixième niveau d'enquête nee na ay conneries la loolu dama koy delloo xam nga ñoom dañu tàmm en fait di def benn genre matraquage ci képp koo xamante ne bii tudd na ci seen milieu te man avec moi ça ne peut pas passer moom nee na way ay affaire de un centimètre nangam nangam mais loolu c'est pas vrai vous savez pourquoi en 2016 Dakar Fashion Week je maintiens ku ñuy wax Dalmeda c'est un mannequin yaa ngi dégg xam nga la moo tax défilé wu lañ ko ne nag parce que am yaram te loolu c'était relatif mu ngi fii ci livre bi mu ngi fii ci livre bi c'était au Radisson Little Bouddha. 2018 décembre Dalméda il a défilé pour Ombilico. non defal oh, non defal ndànk rek man li ma lay wax c'est des c'est des références je veux dire donc aujourd'hui mënoo ñëw apprécier sama livre comprendre nga te liiruloo ko. loolu je dire ça c'est de la malhonnêteté en fait intellectuelle loolu kenn de ko def. je comprends parfaitement. mais tey jii su ñuy wax euh, euh, milieu mannequinat ñu koy comparer ak euh, di wax ne que c'est une profession de de mœurs légères. Mhm. naka la ñu mën a duggee bay wax parce que c'est quand même un peu lourd quand on parle de mœurs légères. non man loolu en fait mën naa ne je peux le maintenir comme je peux relativiser xam nga lu loolu maa ngi koy wax ci introduction bi. <coughs> Encore une fois, c'est pas mon propos de dire que tous les mannequins sont des prostituées. C'est pas mon propos, je ne l'ai jamais dit dans le livre. Par contre, dans le livre, am na ñoo xamante ne dañ daan taxaw di wax naan du ñu tox du ñu nangam nangam man dama enquêté fekke mais dama bind seen tur le journaliste qui est incapable de faire des révélations il n'est pas journaliste c'est ça la vérité des faits c'est ça la vérité de faits xam nga lan moo tax ma wax loolu ci introduction bi dama expliquer ma ne quelques notions pour comprendre dans les couturiers euh, bien en fait les ateliers chaque couturier chaque couturier dañu am li ñuy tuddee des mannequins des mannequins objet dañ di wékk jël yére solo leen n'est-ce pas. oui kii défilé mannequin lañ koy tuddee est-ce que comprendre dans la tête ou bien dans le discours de certaines personnes ñi nga xamante ne am nañu wërsëg mais na ma yàlla baal c'est des esprits abrutis ñoom buñ la gisee bët boobu lañ leen xoolee cest à di bëtu objet. mooy tax dañuy am sañ-sañ di ñëw ci yow naa la dama lay luyee je veux faire telle chose avec toi je veux coucher avec toi am sañ-sañ défilé jeex ñu jël ay carte de visite di ko jox ay góor di leen doxal ça les moins informés dans le milieu du showbiz le savent naturellement et personne n'en parle c'est ça la vérité amul leneen moi je n'ai pas inventé je n'ai pas essayé naturellement en fait de changer le monde du tout mais il, il est tout à fait normal que jël ay problème de la société remonter ko à la surface mais c'est à la société en fait d'y apporter en fait des solutions c'est aussi simple que ça le Néba. alors Abdoulaye parlons du du mannequinat gis nañ fi quand même euh, ay euh, icônes du du mannequinat j'ai envie de dire sa euh, euh, Sadia Gueye j'ai envie de dire Oumou Sy qui ont vraiment marqué xaaral marqué ce milieu da nga wax lu am solo dafa am loo xam ne dama ko fàtte am na ñoo xam ne tudd naa seen tournée mosuñu mën nangoo jël téléphone Sadiya Gueye ba récemment récemment récemment ci la soog a tàmbali di wax ak man après ma mois mu ne ma non dama xaw a am en nangam nangam mais ñeneen ñi pratiquement du umu si umu euh, umu si moom lañ doon accusé ci affaire les cent les cent mannequins libyens je pense c'était elle non je pense c'était elle oui mais ñu ci bëri koo ci woo téléphone du nangoo jël boo ko envoyé SMS du nangoo jël ba ci cortège sax addu ñoom ñu bind naa fii ils ne veulent pas ou bien ils ne veulent pas en fait débattre de ce euh, sujet man mais man loolu moi je n'y peux rien du tout ku nekk boo demee marché li nga am moom ngay duggee li nga am ca marché moom ngay indi moom ngay togg loolu mooy dëgg. moi j'ai pas inventé bu sa ndugg togg bu sa ndugg baaxul doo togg lu baax. non man sama ndugg baaxul tout à l'heure tout à l'heure a dit excuse ce qui est centimètres yooyu il n'est pas d'accord ci loolu. ba pare il se contredit lui-même en disant que Dalméda 2016 dafa dem ñu ne ko c'est trop gros pour. 2016 mu ngi ci livre bi. c'est dans l'ouvrage dafa ne il n'est pas mesurer lépp à des millimètres près. après il revient pour dire non, que dafa dem ñu ne ko mënoo défiler. parce que da nga non ne carrément problème man la non si vous avez ce problème là. parce que moi Dakar Fashion Week c'est international. eh bien naturellement je Dakar Fashion Week xam j'ai pris du pois dama jël ventre dama dem ba teg sama carrière de mannequin de côté dugg ci gestion yor sama agence de mannequin di former ay jeunes hmm. donc lépp loo gis étape par étape la Baba dina dem ba dina toll benn phase boo xamante ne malgré qu'il aura toujours sa belle voix il va se dire que ne je vais me concentrer sur mille mélodies pour lancer les jeunes ñu mën a. mais alors pourquoi perception boobu ñuy am ci ci milieu mannequinat. il faut leur poser la question parce que le mannequinat c'est un métier noble loolu laa bëgg il faut être dans le cœur du métier c'est ce qu'il a fait d'ailleurs ah moom. <laughs> <laughs> il a été dans le cœur du métier pour mën a. xoolal au non mais en c'est-à-dire moi pour mën a jël j'ai pas besoin de le connaître pour le journaliste non en fait le journaliste. c'est les informations. il vérifie les informations et il les publie. et qu'il soit crédible informer <laughs> juste et vrai. c'est ce qu'on man xool c'est-à-dire yéen ay de complaisance ngeen tàmm. c'est ça la vérité article de complaisance waay. man toog naa reer ak koo ne elle est en fait dans le jet set. faut pas prendre exemple ci benn nit boo xamante ne san ne représente même pas zéro virgule zéro zéro neuf pour cent des mannequins de mais c'est un symbole nga bëgg a jël benn exemple ci ci une seule parce que ah, gis nga ah, fekk ni ah, vous plaît euh, en fait man damay tàmbale pour wax ni euh, dam lay féliciter parce que bind tamit yombul mhm. bind yombul te itam comme ni nga ko waxee journaliste mënul sukkandiku si lu dul ay faits. Hmm. comme on di la commentaire et libre mais les faits sont sacrés. Hmm. la sacralité des faits si wàllu tasum xibaar dafa am solo parce que journaliste Pape Matar xam nga ko du toog néegam inventé histoire daal di ñëw rek bind. si li ma jàpp euh, bidonnage comme ni ñu koy waxee dans le jargon journalistique bidonnage toog sa kër gis dara jël ko après def si dara déedéet. mais man euh, milieu mannequinat dama ko mës gis mais de loin. Ah. milieu mannequinat li ma si mës am yëpp ay dégg-dégg laa si am. milieu mannequinat am na léeg nag ma teg bët par rapport à des yoo xam ne peut-être ay jamono daan nga fa dugg di ko fréquenter ñu la diw ak diw ak diw ak diw wala diw mii wala diw mi mais sur la base toujours de rumeur. comme moom dafa def gëstoom man gëstoom dama jàpp ni as li am solo ba am solo pour. pour toutes les personnes qui tournent autour du mannequinat ma jàpp ni il faut nga gëstu lan moo nekk ci biir livre bi bañu sikkandu ndukkiku si li nga xam ne ñu ngi koy tudd ne livre bi lii moo ci ne wala kay wax na le wala kay wax na le man mhm. dama jàpp ni rek um, sukkandiku mooy xool lan moo nekk vraiment le contenu parce que man ouvrage bi j'ai la chance jot ko lire jeexalu ma ko gaa parce que li ma des barewul mais li bari lire naa ko ci te gis naa lu bari loo xam ne sëñ Mansour def na ko comme révélation mm. révélation boobu man du ma tuumaal nit ak nit parce que man dama doon am benn perception négative noo xam ne yow xaar waa d' accord xaar non non là vraiment mais ah. man j'avais toujours cette perception nga baal ma une cette perception négative quand je je je voyais un mannequin euh, homme mhm. mais bi ma xamee mannequin góor ba gën ko jege j'ai compris qu'en réalité c'est une personne boo xam ne dafa choisir def li mhm. par passion am mais dafa amoon beneen métier mais bi ma toog ñuy toog di naan di waxtaan c'est là ne ah man ndekete j'ai fait <coughs> beaucoup d'erreurs mhm. tu vois parce que en réalité j'ai eu une autre perception si nit ki par rapport ak li muy nekk góor ba pare di sol yëre di dox si ay plateau mhm. jigéen ñi itam dama am beneen perception mais gënaat naa am beneen perception bi ma gënee xam ñenn ñi si milieu bi wante àla kuli àll dafa am ñoo xam ne ñi ngi si biir milieu bi ñoo xam ne dañoo nekk la mauvaise graine ça on ne peut pas le nier il y la mauvaise graine mhm. cette mauvaise euh, que l'on dit peut-être euh, qui, qui, qui s'adonne à une sorte de prostitution déguisée. Ça peut être le cas. Mm -hmm. Cette mauvaise graine qui fréquente certains milieux interlopes, ça peut être le cas. Cette mauvaise graine, bi nga xam ni véritablement mi ngi dans la consommation abusive d'alcool, mm-hmm. et cetera. Cette mauvaise graine bi nga xam ni euh, c'est un homme qui fréquente peut-être un milieu qui n'est pas qui doit pas être le sien. parce que c'est un milieu boo xam ne peut-être aujourd'hui avec la montée en puissance de certains milieux lesbiennes gays bisexuels transsexuels souvent da da nga da ngay da ngay gis nit ki nga ne est-ce que est-ce que est-ce que tu toujours des questions mais baax na tey jii nii ouvrage bu mel ni am mannequin bu mel ni yow toog parce que itam nit yi dañuy gën a mën a peser le pour et le contre le pour et le parce que kamu sute nga ko man c'est naa ko waago ñaay euh, euh, lu bari ay yeneen grand xam ko ba tey jii nii mi ngi def liggéey boo xam ne jusqu'à présent boo ko gisee da koy respecter donc perception boobu rek la mais tu sais Euh, cette majorité de mannequins man je suis parce que yaa ngi koy wax l'école de Sadia Gueye l'école de de Oumoussi c'était avec fierté que je voyais des tuniques africaines des hommes défiler avec des tuniques africaines des femmes et cetera et cetera je me rappelle plus défilé yi nga xam ne c'était avec les tissus de la Sotiba Simpafric mhm. yoo xam ne on montrait la valeur justement de ce tissu sénégalais da ngay gis yeneen défilé sur d'autres plateaux avec euh, véritablement ce wax africain mhm. donc am na lu bari loo xam ne parce que la culture fait partie intégrante de l'échelle de développement te culture dafa yaatu musique bi Baba Andi di def dafa mun def musique utiliser le mannequin homme comme femme pour valoriser et sa musique la culture sénégalaise pour mieux vendre parce que c'est un diplomate de la culture sénégalaise comme vous vous êtes diplomate Justement, de la culture même voilà de, de, la, de, la, de la de la mettre culture en, sénégalaise mettre en, mettre en valeur euh, voilà. euh, costumière yi lu ñu def voilà voilà maintenant boo xoolee boo xoolee mm, sur le plan comme comme ces costumes qu'on voit d'ailleurs euh, sur le plan sur le plan international malheureusement Pape Matar tu, tu le sais je le sais Pape Mansour As ah, tu le sais il y a certains maître costumier yoo xam ne on les connaît carrément homosexuels tu vois donc perception boobu noonu même y a man y a des y a des y a des couturiers yoo xam ne qui sont africains et que l'on connaît véritablement dans le milieu donc perception boobu souvent la nit ki mais malheureusement euh, euh, malheureusement mhm. portion bu ndaw la mhm. portion bu ndaw la mais man je me encore une fois c'est bon qu'une personne dem investiguer amaana ndax association bi wax na mu waxul mais moom il sait qu'il a mm-hmm. parlé à des personnes et je me dis que moom journaliste suba par mm-hmm. rapport au tribunal de l'histoire mm-hmm. warul mën a wax lu dul dëgg man dama jàpp ni man kenn bu nga ko dégg rek war na dem xool ouvrage bi lan moo ci nekk pour pouvoir apporter des réponses beaucoup plus objectives beaucoup plus convaincantes et bu mu bañ a nekk une polémique parce que peut-être que moom li mu bind yow ça ne te concerne pas parce que tu es sûr en ton âme et conscience yow mii ñeme ñëw toog jàkkaarloog Sénégalais man je suis sûr de j'ai cette présomption positive <laughs> que ni tu n'es pas de ce de ce de ce de ce de ce de cette mauvaise graine là. parce que c'est important. Mm. Euh, ñu ñu souligner loolu. mais dama bëgg a préciser lu ndaw a ndaw rek c'est-à-dire faw nit ñi comprendre ne enquête. Mm-hmm. mooy feeñal li ñuy nëbb wala li nëbb loolu mooy enquête. loolu mooy enquête. mais non dafa côté positif ak côté négatif yëpp. non defal naa dara mën na dara mën na nëbbu. mais non comme yow liiroo livre yi nga ne ay conneries la franchement yow mënuloo ma tontu. <laughs> mais am na droit aussi euh, par contre sëñ Mansour euh, am na droit aussi euh, joxe avis bi ñëpp am na droit il a été mannequin il a été dans le milieu donc il a quand même non kii xam naa ko en juin 2018 Jeune Afrique a fait un article sur lui man gënoon ma xam kii xam naa ko naturellement moi je le connais. oui donc justement ce qui fait que il a le droit d'intervenir mais attendez cest dire mais lan mooy ay consulté woo mais vous n'êtes pas un tour de contrôle dans le milieu du mannequinat je regrette <laughs> ah bon oui absolument mais je fais partie des aiguilleurs. a atterrir baax na très bien alors Babam di euh, justement Mbow daf ko souligner euh, tout mm. à l'heure euh, ma ciy duggaat dañuy am perception des fois ci ci ci ci ci benn profession parce que justement xamuñu lan la dañ koy gis nii rek de loin on s'imagine des choses à travers benn exemple boo xamante ne peut-être c'est une mauvaise graine on s'imagine des choses jël yëpp boole ko ci même sac mm. jeté à la poubelle alors que peut-être que le milieu de le, le est juste fabuleux. Oui, euh, Bougonako euh, grand bi. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu prends le métier ci naa comme nga jël beneen métier, bu mu mënti doon, comme ni ko grand bi waxee Fenn foo dem rek di nga fa fekk yoo xam ne baaxul wala société bi taamuwuñ ko ci mais aujourd'hui man ci li nga xam ne parce que moom métier euh, enquête bi mu def nii man defuma ci enquête mais wàcc naa ci terrain bi mm-hmm. dund naa ak mannequin yi tukki naa ak mannequin yi sant naa leen liggéey jël naa leen ci ay prestations donc je les connais je euh, du milieu boo xam ne dafa euh, parce que c'est ça c'est le ça c'est comme il l'a dit et vraiment vraiment man ñi nga xam ne dama leen ci jot a xam ay nit yu yoo xam ne boo leen boo leen xoolee sax nga gis leen ñuy défilé nii ñu nekk jigéen mën nga leen gis ñu défilé mais boo taxee ak ñoom doo am fit wax ak ñoom de parce que fulla ak fayda man laa gis tombe tombe guma ci ñoo xam ne ñàkk nañ fayda ça c'est une vérité beneen bi mooy man sama jabar dafay ñaw dafay utiliser man mannequin tout le temps aya donc xam na euh, dafay bëgg a jël pour pour pour wax sax leneen que ne des fois ñun ñu xoolandoo ay photo ñu ne kii dafa tuuti torop pour yére bi donc gis nga il faut qu'on arrête un peu cest à que li taw États-Unis ak fii du benn mm-hmm. quand tu viens aux États-Unis Euh, da ngay jël euh, benn benn euh, je vais pas dire couturier xamatuma nu ma koy wooyee koo xam ne dafay defar soutien wala dafay defar rouge à lèvres mais kooku dafa soxla koo xam ne dafa am full lips dafa am ko dafa soxla façon poitrine bi pour pour parce que day defar ay soutien mais malheureusement les mannequins de détail voilà mais loolu ñun par exemple peut-être soxlaa guñ ko fii parce que les pays tiers loolu loolu sax moo tax ñu naan euh, pays yu sous-développé parce que du doon industrie doo ci am lii doo ci am lii doo ci am lii doo ci am lii le milieu du mannequinat mënoo ko jël daal di koy sëlëx c'est pas possible dañuy jaay la destination sénégalaise c'est une composante essentielle du développement gis nga gars yi dañu foog ne culture fecc ak way la mm. du loolu c'est pas ça la culture est un facteur économique politique et social c'est-à-dire que aujourd'hui mënoo ko jël di ko fooye il a raison d'accord mu def gëstu àdduna noonu la fenn fu nekk rek da ngay dem nga def gëstu et et je le disais tantôt à l'entame quand je disais il faut préparer la génération future l'Afrique doit préparer ses enfants à des leaders revoir ses écoles et sa manière de faire sa manière c'est ça C'est le fait de dire est-ce que je vais écrire ça pour décourager ñeneen ñi ñëw alors que yaa ngi nekk ci dëkk boo xam ne kenn liggéeyu wala est-ce que da leen war a encourager est-ce que le gouvernement doit les accompagner xam nga lan moo fi nekk mooy que ne dafa ci suñu ci suñu njiit yi amul benn politik qui accompagne les acteurs culturels loolu rek moom mooy li bon mais il faut tout un pour faire un monde et aussi pour faire un pays il faut des cultivateurs des man des mannequins c'est-à-dire que aujourd'hui lui xoolal gis nga yére bi mu sol nii mhm. mais couturier bi bu ñëwee pare il faut que moom moom mu sol pour que kooku mën a yóbbu këram dundal njabootam njabootam boobu mooy caméraman bi to di film nit ñi mun ñu seetaan c'est-à-dire que il faut respecter tous les métiers du surtout le métier la culture c'est-à-dire quand j'entends <laughs> mais yeneen métiers yi ñoo gën a bëri ay mbir yoo xam ne duñ ko wane mm. parce que ñooñu ils son très très bien organisés et et, et d'ailleurs c'est c'est euh, entre guillemets c'est ces en ont profité pour l'idée ces hommes de culture parce qu'ils se sont rendus compte que ces hommes de culture n'étaient pas organisés ces hommes de culture dañ naan heure bi yew nangam nangam je vais en profiter pour les leaders alors que ñoom ñëpp ñoo demandoo jàngendoo ñoo kii il faut il faut moi je pense qu'il faut les respecter et en même temps aussi je respecte li parce que dem gëstu bind c'est très bien li mu wax selon yow yow ci cër ca la nga wax. alors dinañ dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat ñaari ndaw rek benn bi moom nee na moom xaw ma aiguilleur la mais faw mu comprendre ne aussi tamit information c'est-à-dire informer c'est choisir yow yaay xool ñi ngay choisir l'essentiel yow source saa boo ko amee da nga ko war a vérifier. Mhm. kii beneen bi il parle de respect il parle de respect mais mannequin yi ci seen bopp ñi leen di défiléloo ñi leen di défiléloo ñu ci bari respecté wuñ leen. li ma lay wax dama ko fekke interrogé naa n styliste. justement loolu loolu laa bëggoon ñëwee sax parce que des fois le sentiment euh, prend le dessus da ngay gis ne que euh, euh, le cachet est dérisoire des fois pourtant ak loolu yëpp yaa ngi gis ne que yaa ngi gis ne que mannequin yi dañuy bëri de plus en plus xoolal lan moo am man def sax diplomatie damay jaar ci digg bi quoi parce que c'est c'est-à-dire xoolal Sénégal Sénégal non non non bàyyi plus de la diplomatie cachet yi uh-huh. am na ci ñoo xam ne bu ñuy tàmbali défilé man gis naa ñoo xam ne 5000 lañ leen jox ñii 10000 ñii 15000 est-ce que yaa ngi dégg baax li ma la wax am na lu ñuy tuddee défilé privé privé privé dans ce pays au moins depuis 11 ans qui se tient au Sénégal ou aux Almadies dans des villas closes ou bien à Saly. avec qui parrainé par de hautes autorités de ce pays c'est ça la vérité historique. noo def ba xam ko. défilé privé. Ah? mais quand man journaliste laa man. li fa xew ci biir. mais n'importe quoi. Mmh. quoi. attendez da nga da nga wax Serigne Mansour du n'importe quoi Serigne Mansour Serigne Mansour. vous avez parlé d'un défilé privé buy xew boo xamante ne. mais dafay am. mais organisé lan la lan lan mooy défilé privé il ne défile pas pour euh, euh, ñi leen di jox seen costume yi n'importe qui du fa dëgg en du fa dugg. Mhm. ah moom assisté na ko kon. n'importe qui. il n'est pas n'importe a fait un livre. pour non il a euh, fait un livre donc c'est normal que mu assister non livre est sorti avant-hier c'est sûr que li muy wax je sais pas ça date de quand. li mu bëggoon ñu. non non euh, man maa am parole nañ ko euh, parce que quand il parle de défilé privé c'est que foofu il faudrait peut-être que ñu. essayer de voir un peu comment ça se passe. défilé privé laa la wax de. Mhm. ñu ciy joxe xaalis bu bari kenn du filmer. amul benn jigéen. amul caméra. non kenn du filmer li ma lay wax du ay caaxaan. loolu dama ne woon loolu est-ce que xam nga benn affaire nee naa nee naa Aïcha Ba li gën a grave ci mannequinat binduma ko en matière d'investigation il faut sérier les information il faut les feuilletonner il faut les épisoder entre guillemets li gën a grave binduma ko li tane la bind li ci des duma ko mus a wax. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. loolu mooy li nga xamante ne mooy dëgg. Mhm. franchement pour man bu fekkee dafa am lenn loo ñuy. voilà lu war a dénoncer wala pour éclairer nit ñi il faut ñu jaar si digg bi wax ko mu leer. en fait moom dafa wax ne que li ñuy gis rek mooy défilé yu am yi. dafa am leneen loo xamante ne. Euh, défilé privé yow tu ni le contraire non non man ba léegi waxoo non c'est-à-dire ni may def ba am information loolu man duma la ko ba léegi gën. déggoo ci sama gémmiñ man Serigne Mansour xam nga yow nag franchement man. xaw ma lépp lu ñu wax mooy. xaw ma man loolu laa bëgg non defal ndànk rek. defal ndànk man mënuloo ma intimider man li ma gis gisoo ko fay def lu bon la wala lu lii la. mais absolument jox wax ko loolu noonu. est-ce que xam nga mbir war mën a taxaw devant le mm-hmm. monde di ko wax nit ñi di ko gëm parce que xam nga li muy wax lan lay def dafay yàq mais justement preuve yi mu doon wax noonu la doon joxe. Euh, ah, est-ce que xam nga mbir oui allez-y n'était dañ ko wax amul caméra amul luy filmer c'est quoi les preuves alors la parole de qui mm-hmm. il faut qu'on soit sérieux léegi nañ ko déglu pour au de sa pensée ndax yaa nga fa woon. ma ne la du n'importe quoi mais kii moom lan lay déggee moom. non da ngeen ne nekk non ce n'est jamais dit nekk ma <laughs> je ne vous ai jamais dit ça. y a quatre témoins qui sont ah non ni may def ba m information man loolu du ma la ko wax journaliste. foo jëlee information est-ce qu'il était sur place oui ou non c'est pas parce que non non fii mooy sama source. en réalité mais euh, il peut quand même avoir ses mën naa am ay sources mën oui d'accord donc on le laisse terminer mais mu wax ñu li muy gis ci défilé privé yi d'accord il est en train de de répondre par rapport à cette question ñu ngi lay déglu la ko sànq man dama témoigner lu bari xam nga dafa am ay mannequin yoo xam ne ku leen bind lan da ngeen di tox ñu taxaw saaga la man dama bind seen tur dañuy tox parce que dama koo fekkee dañuy tox cigarette tox cigarette te ay jigéen lañu ku ko mësaan bind ñu taxaw saaga la mais témoignage nekkul lu ndaw ñaata procès lañ fi ibbi fii ci réew mi am ay ce qu'on appelle de témoins clés bu ñu ñëwul mais procès bi sëñ bi kenn du ko ibbi loolu ñëpp xam nañ ko procès Khalifa Sall ñaata témoins ñoo fa nekkoon. Hmm. wa ma shahidna illa ma alim naa ma damaa gis. <laughs> am na koo xam ne bi ma ko gisee mito ça m'a fait un semi choc. Hmm. dama wëlbatiku dem laajtaan est-ce que ñu ne sax ñu dafay tox moi je mais, mais mais quand même toog quand même c'est un peu léger parce que quoi qu'on dise am na ñoo xamante ne y en a énormément qui ne sont pas mannequins ñoo xamante ne euh, dañuy toog dans le journalisme euh, métier yu ñuy gis ça n'a rien à ak ne euh, faut pas déplacer le curseur mm-hmm. aujourd'hui le curseur il est placé sur le podium mm-hmm. nañ dox ànd ak moom loolu mooy dëgg bu ma wax ay feneen fii non non aujourd'hui le curseur il est oui, sur le par rapport ak cigarette on dépasse cette non déedéet non ma àggale mhm. rek. ma àggale xam nga lan moo tax mu bëgg a wax loolu. en préambule waxoon la euh, ce que j'appelle en fait des actes de euh, de complaisance yow da ngay nekk Serigne Mansour Serigne Mansour n'est pas un modèle. Mhm. du modèle. voi en fait voisin wu Serigne Mansour nga yow source nga mais mannequin bi wala Serigne Mansour mi nga xam ne bon en fait man non non moi je ne par exemple mannequin bi day ñëw fexe ba am article boo xamante ne ci Abdoulaye Mbow yow booy lire article bi doo en fait doo respecté Abdoulaye Mbow parce que da nga naan Abdoulaye Mbow mi bu laajte woon li mu bindal kii du ko bindal parce que kii li ma ko xamal ainsi de suite ainsi de suite mais pendant des années les man ont eu à bénéficier de ça ku wax ñu dal ci sa kaw ku wax ñu dal ci sa kaw ku wax ñu dal ci sa kaw j'en par exemple au defi défilé privé mais défilé privé yi bon bref lañ naan festival la ñuy organiser pendant une durée ci durée boobu mën nañ ci def ñaari défilé privé n'importe qui du ko assister foofu lu ne lañ fay def lu ne lañ fay def sama benn xaritu égérie du ma mës a wax turam bëggoon nañ ko dugal ci réseau boobu am na réseau boo xamante ni mu ngi fi Dakar ci yooyu la ñuy dox ki yooyu la ñuy dox est-ce que ñun dañu war a toog seetaan ni croiser les bras suñu jeunesse bi tey ñu en fait ñuy consommer seen avenir mais ëllëg si biir kon pétrole beeg gaz yi nga xam ne dañuy ne fii di ko xuloo da ci marche da ci def lu nekk kan mooy nekk héritier yi kan. <laughs> Pape Makhtar festival boobu ban rapport la. tu as été mannequin mais parce que loolu <laughs> mais ci biir dafa yam ay activité connexes man li ma lay dafa leer. day am ay activités connexes. Pa Makhtar yaa ngi reetaan de. on verra kan <laughs> kii sa sa sa kii de man. Pa Makhtar gis naa benn photo. Pa a a été mannequin. Ah ah, wala ñu niróo lool. man daal xam ah. bi joxe naa ay mannequin yoo xam ne dañu daan défilé dem ñibbi. comme wax naa ay défilé ay mannequin yoo xam ne dañuy défilé ba pare def ay activité sup def leneen ak leneen ak leneen. luy activité non mu ngi ci livre bi bind naa seen tur. da ngay collé a vu que ci livre ci sa livre on a vu des fois on a vu des fois da ngay da ngay da ngay boole des fois li di mannequinat ak un peu prostitution. mais y a qu'un pour en fait pour certaines filles y a qu'un pas y a qu'un pas madame la vérité si y a qu'un mon ami tu ne peux pas avoir. bi mën a kii naa di neex dëgg Ambroise Gomis yor ko yor agence harmonie di fay yenn xale yi mën naa tudd seen tur. non ci la naa doon non ci la gënoon dox. Hmm. les années de grâce du mannequinat c' était dans les années voilà ay 2000 après 2000 ainsi de suite muy fay booy 80 000 par mois ñi nga xam ne dañuy def prestation su ma jumulee ñi nga xam ne def nañ prestation leen defal leen defay quatre vingt mille quatre vingt mille par défilé non defal ndànk actuellement nii à temps bi nekk nii au plus waaw on nous paye quatre vingt mille cent mille francs cent vingt cinq. non grand grand xam nga nag ñun ñoo bokk ñoo bokk métier bi c'est-à-dire que il faut pas tomber dans le piège des. Mm-hmm. ci affaire yi pour man. prix gis nga njëg kenn du ko wax ci télé. c'est que non na la mais moom. moom man ma am temps de parole na ma bàyyi maa a. c'est-à-dire que waa ji waa ji neex la nga xam nga parce que njëkk yi moom bu ko wax. non non grave njëkk yi bu ko wax. d'accord xam nga dama bëgg éclairer benn affaire. Mm. parce que ñu ngi wax sànq ba léegi ci prix yi du ma tudd prix yi. déjà wax nañ ko ba pare. cité na fii koo xam te ne nee na da daan dépenser lii te alors que daanu gagner loolu par défilé il faut pas ñu ne kii mannequin la amul benn revenu bu dul mannequin. loolu mu ci livre bi je l'ai bien expliqué. non il faut lire le livre je l'ai tellement bien na leneen lu muy def. man personnellement ñoom ñëpp loolu la ñuy man ki naa tax ma ubbi sama agence. ki naa ci laa ubbee sama agence et j'étais mannequin di défilé ñu may fay di def ay publicité ñu may fay ci laa ubbee sama agence. ba di ci former ay jeunes yoo xam te ne depuis image yi jàll fii sànq ba léegi ñu ngi leen ci wane. kon dérisoire yi ñuy wax yooyu yëpp teguwul. lan si cachet dérisoire yi ñuy wax yooyu yëpp. il faut savoir une chose c'est pas sur les podiums que tu que tu gagnes ñi ñu déglu ma bu baax ci li may wax. Mhm. du yi la ñuy am fortune. podium yi ça sert à quoi à montrer ton image à montrer ton profil montrer ton talent et vendre la tenue que tu li ma sol nii tailleur bi moo ko ñawal. fayoo fayu ma ko prix comme lii ñeneen ñeeg ñeneen ñi di fay. Mhm. parce que lan la je suis su ma ko solalee je fais une pub euh, pour pour moom. Mhm. donc dañuy gis mannequin yi sañse ñoo naan kii li muy gagné mënu ko fay loolu te alors que mi ngi sañse di teg ay cheveux di teg lii. on a d' autres activités yoo xamante ne c' est pas uniquement le mannequinat ñi ngi liggéey di daan suñu doole su les podiums da ngay ñëw nga wane sa image wane sa profil wane sa beauté jaay yére bi nga sol kenn woo la pour kenn woola pour égérie kenn woola pour publicité mhm. keneen woo pour leneen ak leneen keneen woo la waa Sen TV bugaan woo kenn ñëw ne ko ñëwal nga liggéey sama télé comme présentatrice tu gagnes de l'argent bu subaa ñu gis la ci télé bi moom après léegi nit ñi lan la ñuy wax li muy gagné ci podium yi permettre ko mu mu am une belle vie comme ça non li mu wax c'est pas en conformité avec le mannequinat parce que il a parlé de way da ngay wane sa beauté mannequin wane beautéem wane non non miss miss non bul def ay confusion bul def confusion man gis nga li fa magazine bi ma leen di xam 2009 damaa wàcc podium benn défilé ñu tàllal ma téléphone ne ma man la Ibulaay bu Lifa magazine c' était en 2000 2009 pour su ma amee ay pose photo pose photo Lifa magazine da ngay taxaw avec sourire ñu photo la yenn pub yu bëri yi may def je le fais avec quoi parce que loolu la damay dañuy xool sa. non mais xoolal. oui tu me dis les miss ñooy def lii élection miss ak défilé xoolal dafa am euh, les concepts. dafa jaru en fait mu leer mannequin du wane taaram. ahankay déedéet xaaral rek li la wax yow yaa ma gën yi wane loolu lay wane la tête aux pieds. miss mooy wane taaram. physique bi c'est la tête aux pieds. ak top modèle ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy défilé ay marque li ma la wax kooku les moins informés le parce que yow bu nekkee da nga dem ba am agence ñett yi xamuloo ko mais c'est dangereux quand même il faut arrêter c'est très dangereux ñooy ñi di def ay publicité ak ay modèle yi ñooy xoolal ñooy les top ñoom carrément la ñuy défilé yaay Awa Dieye top modèle la li mu défilé bariwul loolooy dëgg mais défilé na lo bariwul li la wax défilé man défilé bi moom mujjee salaam mu def ko su ma juumee 2012 la grand ah. a Jean-Paul mi ngi wax top modèle la te mi ngi moins informé le sax kii mm. nag bu demee ba yor agence xamul lan mooy Miss top modèle égérie bon quand même faut arrêter on euh, euh, top modèle à la fois faut arrêter xam nga déjà je rectifie man j'ai jamais défilé xam sax ñuy défilé tu es sûr moom war na ñëw sax ñu défilé ak ay grand boubou ak costume avec le physique je le vois bien dans ça oui avec le <laughs> physique da koy da koy jaay vite <laughs> macha allah mais mais en fait euh, li ñuy wax ci ci ci c'est vrai que déplacé wuñu curseur bi mais en fait man le problème je crois que c'est beaucoup plus profond en fait euh, travailleur bi sénégalais bi nañu nañu nañu nañu ñu wu parce que en fait li muy wax ci mannequinat bi boo demee ci télé yi mhm. boo demee ci en entreprise yi fa nga koy fekk parce que mhm. inspection du travail moo deful liggéeyam mhm. gis nga xale yi c'est vrai que lu ñuy nekk en tenue légère dafay a tax ñu gën ñu gën a ñu ñu gën leen ñeme mais aujourd'hui yaakaar naa waroon nañ leen gën a mën a protéger Euh, fu ma dul d'accord grand bi mooy bu ñu rejeter systématiquement li nga xamante ni moom da ko indi pour contribuer à ce que man yaakaar naa lii mu def nii pour que nit ñi am beneen perception wala nit ñi am beneen image bu positive ci mannequinat la même si mhm. euh, bu nekkee dafay indi ay critiques wax ngeen ko mën a accepter ci critiques yi ngeen xool am na peut-être un pour cent boo xamante ni dañuy def lu bon lu mu bind ci livre bi mais yéen ñi nga xamante si seen mbir la ci seen gagne-pain si seen métier boo xamante ni ngeen jàpp dafa noble ngeen fexe ba seen biir ngeen jéem ko régler je crois que mooy gën a constructif que ñuy rejeter systématiquement livre bi. wala li nga xamante ne j'ai pas compris. comment nga ne sunu biir ñu gën a régler pour ñu xool. lu ñu waaw xam nga dafa indi dafa indi contribution. Mhm. Euh, ci li nga xamante ne mooy seen métier bi. Mhm. te yéen da ngeen ko xaw a rejeté de façon systématique parce que ba mm. livre bi génnee man jaar na armatan bon jot naa si ay échos yoo xamante ni du du ay échos yu favorable de la part des mannequins parce que dañuy mm. gën a insulté mm-hmm. du ñu sax jéem a déglu alors que même bu nekkee un pour cent boo xamante ni dafa nekk ci milieu bi di def li nga xamante ni moom da koy dénoncé si ci ci livre bi yéen boo leen toogoon jéem ko segg génne ko si woo ko def beneen livre sax boo xamante ne contre argument lay doon ni ko c'est vrai que lii am na ci mannequinat bi mais 99 pour cent bi lii ak lii la. parce que tey est-ce ñun ñoo koy woo c'était pas préférable que. ba mu génnee parce que xam nga bal bu xas ba tàkk. bal bu xasee ba tàkk ba dem. xamoo yan dégâts lay def. amaana mën nañ ko bañ a mënoo ko dab mën nga ko bañ a réparer. non donc premier rek ça peut amener des dégâts.